mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyowaat bu baax di leen siyaara di nuyoo fii ci Paaleen fii ci kër Serigne Cheikh Fall Ndigal ci juróom-ñetti fani koor gi njabootu maam si Ibrahima Fall gi di taxawu ndogo yi nga xam ne ndigal li moo ngi jógee ci Serigne tubaa mu digal ko maam si Ibrahima Fall ne ko damay séntu gan Cheikh Ibrahima Fall daal di wax ne eh, sëñ Bamba ay ndogu la may wax waaye sama ndogu yooyu ku ma ci jox lu toll ne tànk dinaa la fa defal lu dootul yàqu te boo faatoo ma tàbbal la àjjana loolu moo waral nag ñuy wër mbooleem buntu kër maam si Ibrahima Fall yëpp tey nag ñu ñëw ci kër koo koo xam ne jàmbaar la lool ci yoon wi ñu di ko dàkkante leen ndigal kër Serigne Cheikh Ndigal Fall ñu fas yéene lay jëlal ndogo yi nga xam ne mi ngi koy togg di ko yóbbul sëñ Moustapha Ndiagne moom sëñ Mbacke Soxna Lo waaye ànd ak mbooloo mi e, sëriñ bi e, ñu koy siyaar baax di ko ñaanal nag suñ borom yàggal ko fi loolu te wéral ko gis ngeen noir blanc yi waaye gis ngeen kër gi heure bi ni muy mel dem ci waañ bi léegi jëlal leen liggéey bi nga xam ne soxna yi ñu ngi koy liggéey waxtaan ak jëwriñ yi waaye dañ waxtaan ak jëwriñ ji nga xam ne sëriñ bi jox na ko kàddu ngir mu yaatal ko ci mbooleem e, taalibe yi kon noonu la ñuy ànd ak yéen dugg ci biir xool liggéey bi dellu si nuyuwaat baax di leen siyaara euh, tey la juróom-ñetti fan ñu taxaw fii ci waañu kër Serigne Cheikh Ndigal Fall euh, waañu kër Serigne Cheikh Ndigal Fall di ko ñaanal baax suñu boroom yàggal ko lool te wéral ko gis ngeen soxna yi ak góor yàlla yi taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci waañ bi euh, di togg xéwal yi nga xamante ni moo jëm ci Serigne tubaa ñu taxaw ak Serigne Mbaye Guèye mi nga xam ne at mu jot dañ ko fi fekk sëñ bi dañu booleek moom ci li nga xam ne yore na ko ci waañ wi jiitee mbooleem koo xamante ne yaa ngi liggéey ci waañ wi sëñ Bay ñu ngi leen nuyu baax di la siyaar di la laaj nan ngeen taxawee liggéeyu kër sëñ Cheikh Fall Ndigal ay at ba tey jii nga xamante ni fi lañ agsi tey. Ah, ku baax ñu ñu ngi siyaar bu baax di ñaan mun Muntaxa mu yàgg fi lool te wér di ñaan sëñ Xalifa Modou Mbenda Fall mu yàgg fi seen sëñ bi Modou Mbenda mu yàgg fi lool te wér di ñaan it suñu wasila suñu bunt ci yoon wi di sëriñ Cheikh Ndigal Fall mu yàgg fi lii nga xam ne moom la fi maam yi bàyyi woon rek la nekk ndax ndogu day kenn ku ne xamee na ko Cheikh ma Fall ah moom it yoon woowu rek laaw li waral nag kër gi ñu jiita ndog yi nii ñu de kër gi mooguñu fi waaye nag suñu waajuroo ko jiite woon ku kulleel googu nag xam nga ni ñoom ci ñoom rek la fekk baax waaw loolu moo waral ñuy yi ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ndog yi nag xëyee damay camion bee ngay gis dama koy sarse nag ba mu fees dell mu yóbbu bettuwaar ndax sëñ bi kat dañ lu jëm ko sëñ Touba dafa war a sell fii du ma ko defaree ci kër gi war laa koy yóbbu vétérinaire bi xool ko ba lépp tegu ci yoon ñu defar ko ba mu yegg ñu doog a ñëw ci kër gi bu ma ñëwee fajar jigéen ñi jóg taaw li nga gis waa ji ni mel nii ñoo koy raxas ba mu son sent ba mu sont set lool ñu doog koo taal loolu moom lañ nekk ci waañ bi te di ñaanal sëñ bu yàgg fi ah, ndax kat ndogu boo loo xam loo sëñ Tuubaa daa war a sell boo see kër gi ni mu demee nii ñu ngi sant jigéen ñi ndax ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu fajar la bu ma yeewoo fajar lu ma teel teel teel a ñëw daan leen fekk ñu toog di ma xaar te it ñu sell dong lañ bëgg waaw loolu moom mooy liggéey bi waaw loolu laal moom. ñu gis ne euh, ñoom am nañ passif boo xam ne mën naa am sax jëwriñ ji am na moom du leen ko digal te dañ koy def. ah loolu bokk pas-pas la bokk pas-pas la ndax euh, kenn ku ne lu baax la yëkkati ak bëgg ndamul sëriñ bi fii nii jigéen ñi. lu ma ci nit mag mag ak gune yi ma nga xam moom laa àndal ci waañ wi lu ma leen mag mag mag mag balaa am lu ma xalaat sax bala ma ko bala maa def leen dangam ñu def loolu ndax bokk pas-pas ak bëgg-bëgg waaw ndax dañoo bëgg liggéey liggéey sëñ bi rek lañ leen ñor daal la ñor leen lu liggéey sëñ bi waaw moom dong daal moom lañ nekkee waaw. ngeen ànd ak jëwrin yoo xam ne koy ànd ak ñoom sab dox war na gaaw rawatina euh, sax euh, ñu koy dàkkantalee ndigal. waaw loolu nga wax dëgg la ndax sëriñ Cheikh di ko ànd moom di nga dox boo bañee di nga dox boo bëggee di nga dox ndax li waroon loolu sëriñ Cheikh ndigal mën ta dox kuy sa maam Cheikh Mawud Moustapha Fall kuy sa waajur sëriñ Cheikh bay Baye góor sëriñ Cheikh ndigal bu doxul tooñ fu mu jaar dox ànd ak moom sax boo ko defee force nga dox sëñ bi joxe ak liggéey sëriñ Tuubaa ak Cheikh Fall ku ko ci man ci Baay Faal du am ndax moom rek la bëgg sëriñ Cheikh Mbacke ko yar sëñ Cheikh Mbacke ku mu yar moom loolu ngay xam te da ko doon ci bàyyam bu baax ba ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér am na lu ma waroon wax sax loo xam waxuma ko waaye mënu ma ko cee ñàkk dugal ndax yaa ma ko fàttali ndax ci nii fi nekk dafa am ci ñun sëriñ Mbacke Ngounda Fall mu sëñ Ngounda Fall rakam loo xam ne seen waajur yaa andoon am na fi ci yoo xam ne dañ koy day taal ba mu baax am ci ñu ci toppaat muy ci sëñ bi cikki mu sëñ Abdourahmane mu sëñ Modou Moussa kooku waajuram ak sëñ Cheikh Fall àndoon li ci toppaat mooy cinul Baye Mahmoud Thiam daara ju mag gi magi taalib yi nga xam ne ñoo muritoon sëñ Moustapha Fall mooy cin loolu Baye Mahmoud Thiam soxna Ndeye Fall mu daaru xafoor jiite ko ci li ci toppaat mooy cinul soxna yi sëñ digal dafa am cinul boppam am na fi cinul boppam loo soxna yoo ko yor loolu la defati ci li ci toppaat mooy cinul ndaw li di cinul soxna Bintu Dieng mooy ñun taalibe dongo yi am na nag beneen cin bu ñëwaat cin bi ñëwaat mooy sëriñ Moustapha Ndiol am na fi cin yal na yàlla yokk ah, sëñ Cheikh Modou Fall na yàlla yokk leeram ndax moo yoroon cin loolu waaye bi mu jógee ci cin yoratul cin yi sëñ Moustapha Ndiol yor ko ndigalum ah, ndigalum sëñ Moustapha Faty Kala nga cin li bàyyi góorum sëñ Cheikh Modou mi ngi cin li cin li jëwriñ ji sama baay daa ko na yàlla yokk leeram sëñ Cheikh Modou jàmbaar la woon lool moom it ci yoon wi jàmbaar la woon lool ju jéggal magam ji ju ànd ak magam ji soxna Ndeye mii bëgg a jël kàddu soxnaa ma woon moo ko yoroon ba pare soxna Aminta Fall si Moustapha Fall jur ko mu bokk moom lépp na nga xam ne kër gi sëñ bi ne ñaanal dongo yi ay balaa sëñ bee xalaat li muy laaj joxe ko balaa xalaat dara dara dara lu bëgg rek talibé joxe ko soxna yëpp soxna saa ngi ni taxaw waaye wóor na Cheikh Rafal day musuma ñëw def mësu ko wax ci waañ kenn ku ne bëgg gi bëgg ni moom soxna ya ko raw lim leen di mag mag mag mag mag lu mu leen wax ñu def ko ba yàlla na yàlla yokk taxawaayam ñu ngi sant nag rek sëriñ bi yëpp seen taxawaay rafet na lool barke Cheikh Rahim Fall jaayëf soxna Ndeye euh, soxna Ndeye Mbaye lañ taxawal jiite soxna yi fii ci waañu kër si Cheikh Ndigal comme niñ ko baaxoo waxee rek jigéen ñi yàgg nañoo doon jàmbaar ci lislaam rawatina ci yoonu murit waaye rawatina ci yoonu Baye Fall euh, ku bàyyi xel soxna yi nga xam ne nekkoon nañ kër maam Cheikh Fall di ay jàmbaar lool euh, di ñoo xam ne ñu am pëseef lañ demoon ba am na koo xam ne maa ngi dégg ci Baye Ndiaga Diop euh, mas na wax ne Cheikh Ibrahima Fall mas na koo wax ne ko su ma fekkoon sëñ Bàmba di seexal jigéen ma seexal la waaye damaa fekku sëñ Bàmba di seexal jigéen loolu nag pas-pas boobu. dafa dox ba fii tey nga xamante ni mooy yoonu Baye Fall waaye fii nga xamante ni mooy kër Serigne Cheikh Ndigal soxna si nga jiite waañ bi euh, nan ngeen yore waañ bi fii ci kër Serigne Cheikh Fall Ndigal ay at ak soxna yi nga xam ne ñoo ngi liggéey foog seqal liggéey. waaw ah, waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di delloo ñëpp njukkal fii ni nekk ci waañu mooy ak taalibe ak bi yar ak teggin yoo xam ne nag lu wér la ndax fi ñu toll nii lii may tuuti tuuti taxaw nii. ku ma ne nii la rek noona la fi ni toll nii paree nii cin lu ne dinaa dem taxaw mos ko xorom soppee dinaa la wax ku waddal danga ma fay ku yàq danga ma fay ñun loolu la ñuy doxee ci waañ boole kooku yar ak i teggin nangu ndigal nag barke sëñ Cheikh Fall ñëpp nangu ndigal léegi nag ñi ngi sant sëñ Cheikh ndigal bu baax ak i rakkam ak sëñ Moustapha Ndiol mi nga xam ne magama moomoon cin li mu xam lu rafet yi yëkkatiwaat cin li tegaat ko sama loxo xam ne ni may yore woon cin li ñaawut mu delloowaat ma ko ma yoraat cin li ak ñëpp nag kenn manqué wut ñu ngi ko ànd ci bu rafet saa ñu koy togg ku mën a rosil da nga rosi ku mën ne baal nga baal ku mën a xolli nga xolli ku mën a tegal nga teg ñoom ñëpp a dégg ndigal ba ci ñii toog ku ci juba di woon su may seen a bàyyil barki Seera Faal du taxaw lépp da ko teg ci suuf kon ñi ngi sant sëñ bi bu baax di sant donga yi ndax lu nu man lu ne rek te di ko def donga yi ci lan donga yéen ñu jàppale kon dañ leen di ñaan fan wu gudd ak ku wér ak fekke lépp ak bépp taalibe ak bépp sëriñ ñu ngi ñaanal ñëpp fan wu gudd ak ku wér yàlla bu kenn tàdd ay ati ati at ci doole Seera Faal sama maam ju baax. soxna nan ngeen nekk ci waañ bi ak yan heure ngeen di xëy si fii. heure yi ni xëy si fii ñun danañ xëy si fii sept heures ñii danañ xëy si huit heures ñii danañ xëy si neuf dama cee booloon alamaan da waaye damaa xam ne ñu sori naa leen yërëm. ndax daa am ñu sori am ñu jege ñu sori nag da nga leen di yërëm waaw bu ndikkee rek nga bàyyi noonu. suñ xëyee lan la ñuy njëkk a def. Euh, ci waañ bi la ñuy njëkk a def ci waañ bi ndawal gi de bu essee moom la ñuy njëkk a raxas buñ ko raxasee ba mu set ñu mari ne ko defar teg suñ paree jëm ci pomme de bi ak soble si liggéey ko jël suñu mat raxas suñuy cin teg di xaar ndigal bu heure bi jotee rek ñu ba ko taal noonu daal la ñuy xëyee ñu bëgg a xam euh, fi ne xéwal yi lan lay doon. lan lay doon xéwal yi. xéwal yi lan lay doon yàpp lay doon pomme de soble. waaw ñambaar gin ci boole nag ah képp koo xam ne man nga bu sëñ bi defee ñaari saaku danga def saaku soble saaku pomme de terre soomee gàtt rey dolli ci biir ñun jigéen ñi ñoo ngi koy jëf waaw boole koo nag li ñu joxe di natt di yokk ci cin li di suyeer bi ba si àjjuma kii bu jot fukki fan ak benn yi jot ñu tëral sunuy nag togg sunuy bool indi yokk boole koo gi sëñ waaw may dégg ñuy wax ci dama ko laaj na ma li ñuy yéem mooy dañuy togg xéwal yi ba mu baax te ñoom euh, duñ ci mos. duñ ci duñ ko laal. kenn du ko laal menn man mi déggoo ma la maa ci am fiitu taxaw di ko mos xorom ndax booy togg di ñu baax war ngaa xam li muy saf lan la moo tax may wër cin yëpp fi mu toll nii su ma paree ci yow nii dee ma xool damay wër yëpp di mos ba xam ëpp xorom ëpp na ba xam kaani ëpp na war wala poobar ëpp na lu ci manqué damay dolli ba mu yem noonu la ñuy xëyee ñun loolu la ñuy liggéeyal sëñ bi. fan ngeen toll fi mu ne. fi nii def na ndawal def bomb teer ak a des ci kaw nii ci lan toll waaw. kon daal ñu ngi waaj a pare pour yóbbu liggéey bi ci borom. ñu ngi waaj a pare liggéey bi ci barab bi di déglu ndigal yàq andi. waaw ñoo ngi toog ak euh, Badiane Daba Fall moom Serigne Cheikh Fall Baye Góor di rek ci sëriñ bi euh, ñu fas yéene ko euh, dëkk kàddu yi rek tuuti Badiane mu leeral ñu ci ànd gi nga xam ne ànd ngeen kook sëriñ bi Eh, ci bu yàgg ba léegi eh, ci eh, liggéey bii nga xamante ni moom lay liggéeyal seen waajur bu baax waaye seen maam ju baax ja asalaamaaleykum mbokk taalibe waa kër Serigne Cheikh Fall Baye góor ñu ngi sant yàlla junni ci yonent bi sant Serigne Touba Cheikh Fall sant sëñ Amdi Fall Modou Mbène na xalifa général de Baye Fall waaye ne sant Serigne Cheikh Fall ndigal Baye góor bi nga xam ne mooy sunu bunt ci yoon wi nga sant di ko ñaanal te di ko gërëm yàlla may fi gudd fan ak wér yàlla boole nu koog moom ndax nag taxawu nañu lool taxaw nañu ko seen Cheikh Fall dëgg yàlla fu taxaw dana siggi lépp lu sunu naaw lay def rek dañ seen digal def na ko ba romb lool kon sant nañ ko baax gërëm nañ ko ndago yi mu koy taxaw ginnaaw bi fii sëñ Cheikh Fall jógee ba léegi mu ngi koy taxaw waaye gisuñ ci leen loo xamante ne daal lu ñu lu ñu jaaxal la ànd ko bi yëpp nag ñu bokk sëñ Cheikh Fall yu góor ya jigéen ñu bool nag leen sant ñoom ñëpp di gërëm ñaan yàlla ñu teewee ko déwén ñu bare bare bare bare sant nañ doo ngay yi suñu mbokk yi ñu sëñ Cheikh Fall baay góor ñëpp nga xam ne seen baay Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall leen ju moom ñëpp sant nañ ñëpp daal jëruñ ci kër gi yëpp daal sant ñëpp gërëm nañ ñëpp nee gudd fan ak wér ñaan ñu teewee ko déwén ñu bare bare bare wax dëgg yàlla tamit seen taxawaay rafet na lool soxna yi moom bàyyi wuñ benn yoon ñoom tamit parce que ñu ngi laxas ay taxaw rek na sant nañ ñëpp daal ci kër Serigne Cheikh Fall ndigal euh, doon jël si liggéey bi nga xam ne njabootu maam Serigne Fall ñu ngi koy def ci weeru koor gi yëpp euh, ñu ñëw doon saytu liggéey bi waaye ñëw sëriñ bi jox sëriñ Mbacke Ngounda kàddu ngir mu yëkkati kàddu gu jëm ci mbooleem njaboot gi ak mbooleem taalibe yi sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu di la siyaar. ñoo leen di fay bu baax ci seen boobu. nuyoo ba gën a màgg di sant di leen bu baax a baax di kontaan ci tew gi fi tew fii di yëkkati kàddu ci kàddu sëriñ seen digal mu yàgg fi ci wér yàlla eggale ko ay méew itam ñu ko moom ci barke Maam Cheikh Fall ba mu ne di sant mbokki talibé yëpp kenn ñi ne ci réew mi ñi ne ci bitim réew di sant xam ne sëñ bi bu koy wax talibé tax waaye talibé wax dëgg yàlla ñoom it lool wax dëgg yàlla man lépp ñu ngi koy def lépp lu bi sonk rek dina ko daan ndax yéen ndax talibé yi kon yàlla yàlla dimbali nag ba ban ban ci bokk rek ci ñi tax sëñ bi daan waaw ndax fii ku fi ñëw wax dëgg yàlla sa xol sedd sëñ bi wax dëgg yàlla jàmbaar la mm, am na Pastef bëgg na maamam nu naa liggéey sëñ Tuubaa dañ ko ñaan rek mooy mu yàgg fi ci wér ànd ko rakk yi njaboot gi ak talibé yëpp rek xam ne lépp loo lépp lépp lu fi nekk rek talibé yi nag la ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di soññ suñu bopp nag di leen soññ ko ndox yaa ngi soo fan yu jëkk yi sax jàllagul di ñëpp te di soññ nga def ko defoon ca man dooleen nga dolli ndax ndogu moom rawale la rawale la kon nag nan fexe ba ñun ñëpp ñu rawale ci suñu doole rawale ci xel bu rafet rawale ci suñu suñu suñu alal waaw lu ci lu ci waaye def rek mooy mooy mooy li nga denc moo mooy li nga mooy li nga am lépp lu baax looloo daf rek mu di yiw lu mel ne ndox yi ñu togg ko waa kër Maam Cheikh Fall toppatoo ko ba mel ne war a mel yóbbu ko waa si Touba jox ko mbo jox eh, lépp lu ci def rek lépp def rek doo ko rëccu lépp lu ci def rek mooy mooy li nga denc. kon nag yàlla na suñu ban denc ci rek yàlla na dimbali ban denc rek ku ci denc loolu nga jéem a ñëw denc rek ku denc ba pare nag boo a dolli nga dolli rek sant ñëpp di gërëm ñëpp rek xam ne daal rawukaay daal rawukaay daal la dañ fexe ba rawale suñu yëf rek jërë ngeen jëf sant ñëpp di leen gërëm yéen waaye Thiam Falit ñoo leen sant baax di gërëm di gërëm seen kilifa yooyu di ñaan seen rajo bi yàlla na nekk yàlla lu ngeen fu ngeen fi bëgg egg rek yàlla na ngeen fi egg sant nañ gërëm leen gis nañ seen taxawaay bu baax baax baax yi galañ yi te way sunu sëriñ bile way yuy jariñ di ci sàkkuy ngërëm sëtu Cheikh Ibra la te ku gëm Bàmba la sang bi gaynde la dama lay wax turam moo di sëñ Cheikh ndigal jëfu ndigal kile moo di way di ci sàkkuy ngërëm ku di Baay de war nga koroy moo di gor tadi góor moo di mbër mi fi semmal kemam mani sëñ seex ndigal dafa jub tey jubal aka dëgguy dëggal di ku feese xikam ku ko xam-xam ni kat dadi dëggi murit la la waaw la la la yi jërëjëf euh, lii lañ leen jëlaloon fee nga xam ne mooy kër kër Serigne Cheikh Fall ndigal ànd ak ndogo yi waaye ñëw fii nga xamante ne mooy kër sëñ Mbacke soxnaloo waaye sëriñ bi jébbal ko ki nga xam ne moo fi toog jotaayu suñ Mbacke Soxna Lo di sëriñ Moustapha Ndiagne di ñaan suñ borom yàggal ko lool euh, te ko gis ngeen yoon wi ni mu mel mbokki taalibe yi euh, taalibe sëriñ Cheikh ndigal yi Pastef bi nga xam ne ànd nañ ko ak turu yàlla wi nga xam ne moom la ñuy laytaaye yi moom la ñuy yanoo bool yi ak si fii nga xamante ni mooy kër sëriñ euh, Mbacke Soxna Lo noonu lañ leen koy fas yéene àndalaat rek ci mbooleem buntu kër yi rek ànd ceeg yéen incha allahu rabbi dana duñ ci rëcc ci weeru koor yi ak Baye Fall yi ni ñuy yóbboo ndogu wasalaamaaleykum wa rahmatullah